ay nit dañuy daanu ay nit di leen faj hmm. ay ñuy mocc mocc ay jaam dafa existé nit jaam da koy mar ñu lugg ko mu wàcc xam-xam bu fi nekk la hmm. ak nit ak ay ndomba yoo xam day faj leneen ay gàllaaj hmm. mais xam-xam boobu yëpp nekk tra nekkoon traditionnel du affaire génn affaire traditionnel la dafa commencé di di ñàkk fayda ndax ay nit ñu koy utiliser di di ci alal di ci fen di ci tappale di cëriande nit ñi parce que comme Sénégal tam xam nga dañoo nekk ay musulman ñoo fi ay musulman mais tam Euh, dundewuñ diine gi ni ñu ko diine sante ñu waaw léegi nag dañoo bëgg di nax yàlla léegi ce qui dañuy def lu ñu neex bëgg di am li ñu neex mhm. te yàlla du nangu léegi problème ñu xam ne dañuy bëri ay problème mhm. yooyu nag léegi après charlatan yi ñoo dañ koy régler di leen fay pour ñu régler ko ñu ñuy tiriyaandi <laughs> gis nga jaan bi màtt geenam la ko quoi voilà du du neex di jënd jaan buy màtt geenam di war di dem du neex li jënti euh, liñ ci sànni ci kàddu gi gudd na mais ñu koy jégalu ñuy déglu xam naa ñu déglu léeg-léeg su ma la daggee des fois mel quoi wax waaye <laughs> tax da ngaa bëri wax <laughs> ko ne man ah ma ma rek garaawul koo xam ne mun na ñàkk mais du leen neex mais du ma ñu koy def non non garaawul parce que vidéo moom feeg feeg feeg mu commentaire mbokki internet yi seen mbokk seen xarit Ousmane Ndiaye moo ñëwaat tey di leen présenter benn produit boo xam ne internet yàgg nañu ko laaj te ñu yàgg ci def ay résultats muy le produit boo xamante ni c'est pour l'impuissance sexuelle ñi nga xam dañoo amee azoospermie oligosperme ou bien problème infécondité ñu problème ñu am doom donc seen bog seen société Boga Bio indi lañ leen Max Fort max fort produit boo xam tout ce qui est impuissance sexuelle ce qu'on appelle le dysfonctionnement érectile yow buy baax na ci mom mom la ñu ñëwoon rek présenter avec des résultats avérés da koy traiter ba mu wër mom la ñu nak tay tey indi ko indil ko bok internet yi muy 5 cinquième produit boo xamanteni nii ñi ngi koy dugal sur le marché avec des résultats avérés tay la leen leen indiloon di leen joxaat ak dajé di daje ci benen numéro ci benen garab inshallah لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko ñëk am bul faté cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko ñëk am Assalamualaikum wa rahmatullah ñi siur sen-sen sen sama xalaat ñu leen di nuyu di leen ziar di leen fatali yeen nga ci sen programme plante de la semaine wala arbre de la semaine <laughs> voilà parce que buñ né plante moy garbi yi té amna te am dañu garab ay arbre lañ duñu ay plante voilà waye muy dal ay gantax wala ay garbi sax ci réew chaque semaine ñu am benn boo xam ni professeur Ousmane Ndiaye comme ni ngeen ko xamee muy borom bokka bi yow nekk tradipraticien nekk fële ca diwaan Kër Bassar xam-xamam jëm ci euh, fajum cosaan bu sukkandikoo ci ay gàncax euh, dina ànd ak ñun wax ñu garab googu maanaam euh, yan mooy ay njëriñam ci wàllu médecine léegi nag bu amaalee sax loo xam ni en dehors médecine am na économie des fois waxaale ci tuuti xalaatam waaye li jëpp solo mooy faj gi nga xam ne garab googu dina ko mën a faj. tey nag professeur ginnaaw bañ la nuyoo ziar la garabu nandook lañ bëggoon xam lan mooy ay ay njariñam ay vertuam ci wàllum médecine traditionnelle ak nan lañ koy jëfandikoo. salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Pape maa internet yëpp mhm. donc nandook muy garab am solo. nga mhm. xamante ni ñu ngi sax fii ci Afrique. nga mhm. xamante ni scientifique. scientifique yi. Mhm. découvrir nañ ko xam nañ ko ni. Mhm. garab la koo xam daanaka. Mhm. mën nañ ni moo ko bokk na ci les meilleures plantes actuellement du monde. parce que dafa am benn euh, ferñeent bu ñuy wax tramadol. boo loolu li ko tax a jóg. mooy antidouleur lépp luy euh, koy soigner. te loolu euh, boobu. moom daf ko am bu baax a baax moom naan doon. donc moo tax day day day faj lépp loo xam ne métti métti mhm. la. Mhm. bu am na ñoo xam dañ ko tuddee plante antidouleur. Mhm. donc mais nag li ci am problème li ciy nekk mooy. plante la boo xam ne en même temps ni mu amee njëriñ mën a faj yu bëri moom. ci diir bu xaw a gàtt sax. loolu mooy avantage am. mais nag noonu la nekkee plante bu toxique aussi. dafa dafa weex

genn waa litre ndox mhm. moom kaasu ataaya la koy jël hmm. waaw kaasu ataaya parce que fii dañuy am problème mu dosage comme ni kay doon wax ci mhm. waaw dosage moom kaasu ataaya nga ci gën mhm. bu fekkente ne nag li ci gën mooy en général euh, soo ko xoojee soo naanee nga dolliwaat ndox waaw su fekkee nga koy xooj lu yàgg soo naanee ba pare nga dolliwaat ci ndox loolu day da dina taxaat waa wexaay bi di wàññeekuwaat waat hmm. donc noonu lay noonu lay noonu nga koy utiliser léegi nag moom wante la boo xam ne bu ñu koy utiliser hmm. jëlul bu la neexee nga baxal ko mais jëlul baxal mën nga ko xooj hmm. soo ko xoojee ñaari yoon ba ñetti yoon maximum jour bi doy boo lekkee ba pare suba mbi di ngoon wala suba ak ngoon la mais kaas ataaya doy na sax fekk léegi nag couleur bi day jaune. boo ko xoojee da nga gis ndox bi day jaune da nga gis boo ko naanee day wex. léegi nag moom baax na ci lépp loo xam ne métti métti la. surtout métti méttitu biir. biir waaw biir moom. daf koy fekk. biir buy métti biir buy métti. boo demee sax mag ñi moom am na loo xam ne dañ koy daan ay ay alxuraan dañ ko daan booleel. wala kooku naan doog mooy nga bind Fatiha. Mhm. Euh, xam nga Fatiha li ma ko waxee juróom-ñaari aaya la. waaw aaya shifa yi mooy aaya yi wax ci wàllu faj. Mhm. juróom-ñaar lañ. Mhm. nga boole leen aaya boo bind bind euh, benn aaya shifa. ba ba mu pare nga boole ko nga naan doog boobu def di ko naan. lépp luy xeetu biir moom yàlla ko saafara incha allah. d' allah am na solo. kon yaakaar naa ñoo ko déggandoo. Euh, muy garabu naan doog. te itam dosage yi mu ci ëpp importance te yaakaar naa leeral nga ko comme ni nga koy leeral à chaque fois ci vidéo yi nga xamante ne dañ koy parce que nit ñi loolu dañ ko war a gën a bàyyi xel parce que bëri na euh, ñu bëri ñuy nekk ci médecine traditionnelle boo gisee comme ni ñu wax sànq euh, nit ñu bëri di leen sànni ay xeer xam nga tam nit ñi dañuy jaal dem fet faju médecine traditionnelle ak euh, charlatan yi nga xam ne dañ naan dañuy faj ñii ci internet ñoom loolu bokkul quoi waaw yow comme yow médecine traditionnelle bi ay plante la. ay plante garab yi sax ci réew mi nan la ñuy fajee waa réew mi. loo mhm. xam bokkul la ki toog ci plateau bi ne damaa am ay jinne am naa cinq cent cinquante deux mille jinne plateau bi ma taxaw kenn ki sama gauche kenn ki sama droite nangam nangam ku am euh, feebaru ndox bu sidi boo ñëwee ma faj ko ku am fi ma faj ko am na ndox bu ko ma la joxee doo dugg kaso deful trois mois ñu jàppale dafa ci kaso bi. <laughs> ah gars yi ñoo def de yow da nga naan yor naa ndomb goo xam ne ku ko takk doo dugg kaso gars yi di ko jaay a dem kaso euh, goo xam ni mën nga ko am gratuitement te xam ne ndomb googu boo ko takkee doo dugg kaso te nga ko mën ko am gratuit nga dem di jëndi ndomb gu ñu jaay cinq cent mille bañ dugg kaso juboo ana jub ndomb ak jub moo gën a yomb boo jubee doo dugg kaso yow koy jubal rek mm-hmm. te jub gratuitement la koy la koy lañ koy jaay mm-hmm. ndomba ndomba ak njub boo ko takkee doo dugg kaso. Mm. léegi nga dem jëndi ndomba boobu dañ ko ëw nga jënd ko quatre cent wala cinq cent mil pour nga bañ a dugg kaso kon juboo mm. am na looy def tax nga bañ a dem kaso. Mm. te ak ah, juboo a yomb. waaw <laughs> ah, a <laughs> macha allah léegi yow ndomba ko nga fay jaay deful six mois jàppale def nañ kaso bi <laughs> xam nga kon dèjà ñi da nga war a rembourser ñu ngi ko jaayam ñëpp. voilà yu mel noonu nag ñooy ñooy tax charlatan yi nekk ci ba pare léegi comme euh, média yi télé yi xam nga tam amul dañoo bari xam nga Sénégal am dafa ndaw. Hmm. ñoom fii cinquante deux teg ñoom ñëpp xam nga même chose la ñuy obligé génnee parce que dëkk bu ndaw noo fa am cinquante deux télé ñëpp ñu wuute programme mënut a nekk. dañuy obligé di wër fu ñuy. ko amee amee ay amee ay fonds. Hmm. léegi nag moo tax nag léegi yow boo ñëwoon sax lu la neex nga na nga fay rek. <laughs> ñu teg la li ngay wax seen yoon nekk si. na nekk dëgg nekkul dëgg directeur programme ba li jëntiwu ko. keer mag keer euh, nu mu tëddi côté kii euh, finance télé bi. moom na xaalis di dugg léegi jënd. Mhm. ki fay ñëw toog di wax na wax lu ko neex seen yoon nekk. loolu nag moo tax léegi ñu dem ba di ñàkkal la ñi nga xamante ni dañuy dañuy doon faj ci côté mystique ci cosaan. di daa utiliser ay xàmbu di faj ay rab loolu dafay exister de gën daal ay nit dañuy daanu ay nit di leen faj. ay ñuy mocc mocc ay jaam dafa existé nit jaam da koy mar ñu lugg ko mu wàcc xam-xam bu fi nekk la ak nit ak ay nomba yoo xam day faj leneen ay gàllaaj mais xam-xam boobu yëpp nekk tra nekkoon traditionnel du affaire génn affaire traditionnel la dafa commencé di di ñàkk fayda ndax ay nit ñu koy utiliser di di ci wut alal di ci fen di ci tappale di cëriande nit ñi parce que comme Sénégal tam xam nga dañoo nekk ay musulman ñoo fi ay musulman mais tam euh, dundewuñ diine gi ni ñu ko diine santé dañ koy dundee waaw léegi nag bëgg di nax yalla légui ce qui fait que dañuy def lu ñu neex bëgg di am li ñu neex mhm. té yalla du nangu léegi problème ñu xam dañuy bëri ay problème mhm. problème yoy nak légui après sar la tay ñoo dañ koy régler ñu da wax di leen fay pour ñu régler ko ñu ñuy tiiraande gis nga jaan buy mat gënam la quoi voilà du du neex li jënd jaan buy mat gënam di war di dem du neex li jënd lool moñu dal nak légui mhm. légui la comme yow li ngay def nag du du lool li ngay def médecine la comme médecin bi nekk hôpital di diagnostiqué di bindal nit ki ordonnance mu dem pharmacie jënd loolu yow ngay def ci wàllum gàncax muy lu naturel muy biyo bio nit ki lii moo ko dal garab gii ngay jël xob yi ngay jël nangami xob nga baxal ko naan ko nangami jour nga xool faj sa feebar. wala nga jël xas mi xooj ko naan ko. Hmm. wala nga baxal ndox sotti ci. yow loolu ngay def nit ñi nag pour loolu tam dafa baax mu leer ci yow quoi waaw li du affaire charlatanisme mais médecine naturelle la voilà traditionnelle naturelle bio mm-hmm. ay plante waaw loolu tam dafa baax ñu leeral ko euh, léegi nag loolu dafa ànd ak joxe ay dosage parce que problème mu dosage ñiy def comme yow ñu bëri problème dosage tout la ñuy am mm-hmm. mooy dañuy wax des fois rek na la xobu poftan dina faj feebar sàngam léegi nag nit ki mun na dem uti fukki xaw poftan fekk benn xaw poftan bi la war a wut. waaw voilà moo tax nag comme ni ngay def nii toujours di di ñëw ci dosage yi nangam ngay wut def ko ci kaasu ataaya wala kaasu ndékki naan ko ñetti yoon par fan benn yoon par fan loolu kese la ñu for pharmacie tubaab yi dominé. <laughs> moo tax c'est très important bu buñ ci bu nga ci ñëw nii di ko di ko leeral ci dosage bi moo tax ñu ngi la ci remercier bu baax daal ci disponibilité bi ak euh, partage bi euh, liñ ci sànni ci kàddu gi gudd na dañu koy jégalu ñuy déglu xam naa ñu déglu léeg-léeg su ma la daggee des fois dañuy mel quoi des fois damay si commentaire yi bàyyil professeur mu wax waaye <laughs> tan ko koy dagg da ngaa wax que ne wala ah ma ma ma ok rek garaawul. ok koo xam ne mun na ñàkk mais du leen neex mais du ma ñu koy def. waaw non non garaawul parce que vidéo yi moom feeg feeg feeg mu ngi dund rek. vidéo yaa ngi fi wala garab yaa ngi fi. voilà du du kii. mais li ñu waxee loolu waaw li ñu waxee loolu dafa ëpp solo. Mm. parce que problème dosage moo ñu moo ñu solo. Mm-hmm. c'est-à-dire man su ma déggee sax ku naan ñun dañoo am problème dosage sax da ngay jaaxal. parce que mm-hmm. dosage bi am na ñu ko xam. vraiment comprendre nga mais buñ jëlee ñëpp xamuñu dosage. Ah, c'est-à-dire vraiment. loolu la ñu li may expliqué keroog maa ngi wax bu ñëw mu ma bu dibaraat xam-xam ne doon wala yu demee noonu ma ne ko man la ma koo contre. Hmm. man ko doon xam nga la laa gëm ci hmm. ko doon am na de. Hmm. mais niñ koy interprété man gëmuma loolu doon xawma nag. man ko mooy nga fekk sa papa di ko def sa maam di ko def ñu jàngale ci formé ci. nga nekk ci loolu laa gëm ni mooy doon. mais doo doon du question da ngay xëy di nga yeewu rek ñu sol la ko wala affaire yi. ñu bëri na loolu la jàpp mooy doon. loolu fekk da doon noonu. Hmm. doon mooy fekk sa papa daan fekk sa maam daan fekk say maamaat daan fekk. Hmm. nga leen ñu daal daan yónni defal ma garab nangam comme man ni ma def sama doom yi rek. Hmm. dama yóbbul ma garab nangam awu jox ma garab nangam. bañ maîtriser ko. loolu la ñuy wax dama ko doon. yaa leen koy jàngal indirectement. indirectement kay léegi nag loolu la. suñ demee ba toog ñoom dañ ko man def ñu dañ koo doon mais nekkul loo xam ne dañoo tëdd nelaw rek ab jinne sol la ko wala nangam nangam ne dama koo doon demee def wala sa maam ñi nekk àllaaxira jël sër moom ñëw place ko ci sa sër bu waaw kay waaw loolu la demee loolu bu demee ko doon ci côté boobu mais dama ko gëstu ji dama ko jàng man ko jàngee naa ko ci dëkk yu bari ci mag yu bari jàngee naa ko université jàngee naa ko fu nekk mhm. donc kon li ñuy wax dañ ko xam mhm. c'est-à-dire que man koy dafa am nag léegi nag xamee woo les plantes toxiques li ñuy wax les plantes médicinales. mooy plantes yiy faj. Mm-hmm. parce que les plantes yiy faj dafa am lu ñuy wax les plantes euh, toxiques. Mm-hmm. les plantes toxiques yooyu nag fii remarqué woo ko xamoo ko mënu koo faj. dëgg la waaw parce que am na garab yoo xam ko nit jaxasee jox ko nit rek yow yaa ngi koy rey. Mm-hmm. donc loolu noonu la demee donc bu defee nag par mi nga mooy mooy suñu problème mën naa ni du bon. ñu ko xamul te nekk ci ñu ko xamul quoi waaw ñu ko parce que parce que yenn saa yi di nga gis ni eh, benn garab bi ngay jox nit mën na ko rey. Hmm. bu fekkee xamoo dosage bi. exemple bu simple rek par exemple tey euh, nit warul seetaan sa vidéo yi. Uh-huh. seetaan vidéo yi nga def yëpp bind li nga si def yëpp. Uh-huh. dem toog na day fajaate. fajaate waaw waaw droit. parce que yow benn vidéo boo def bu ne pour benn feebar la pour benn cas. benn cas kooku mën ko jël jëfandikoo ko. Uh-huh. mais ki bëgg a di fajaate dafa war a xam au delà de ça. Mm-hmm. dafa war a xam lu ëpp. lu ëpp li nga wax ci garab gi. Ah, te daa war a ñëw ci yow nga jàngal ko mu soog a dem di faj. mais warul seetaan say vidéo rek nekk utiliser xam-xam bi ñu ci wax bëgg a nekk fajkat xam luy li nga wax juste ci lay mën a yem. waaw garab gii ngay nii def dosage bi pare ci lay mën a yem. te loolu yaa pour que utilisateur bi yow ngay waxal. ki bëgg a faj nag daa war a ñëw ci ku mel ni yow. mu jàng li ngay wax ak li ci ginnaaw li nga waxul. waaw loo xam nga nekk fekk xam nga sax pour nga fekk. c'est comme man exemple tey. bon ñu bon wax waxe yi di ñu bëri dina leen jaaxal. Mhm. tey ñu ngi waxtaan ci naan doom. Mhm. en général man garab yi may waxtaanee doo jël garab rek nit pour faj ko. dëgg yow nit ki bu la cee wax. Mhm. wala sibbiru. wala benn garab rek la nit ki di ñëw nga jox da ngay am sa composition boo xam ne mën na nekk ñetti garab. yow fajkat bi waaw yow fajkat bi mm-hmm. ñetti garab yoo boole wala ñeent. Mm-hmm. jox ko nit ki. Mm-hmm. exemple te am naa garabu impuissance sexuelle boo xam ne onze plantes la composé. voilà waaw loolu doo ko def ci doo waxee ci ay vidéo. waaw xam nga <laughs> te te composition bi. bu nekk dafa am dose normale. maanaam garab yi duñ tolloo. bii day nekk trois parts ñetti yoon bi nekk benn yoon bi nekk genn wàll. Mm-hmm. maanaam bu bu nekkee ñetti kilo am na boo xam ne kilo la ci am na boo xam ne genn wàllu kilo la. Mm-hmm. am na boo xam ne da nga tibb nii rek def. Mm-hmm. donc kon waaye ba onze plante yi la. bu dee hémorroïde bi noonu am na yoo xam ne ñii garab la composition yu bokkul. te bu nekk tolluwul ak moroom donc ça veut dire que même si bi noonu ainsi léegi bu foofu la problème bi nekk. da <laughs> jàng waaw nan ngay xamee garab bu si nekk. quantité bi nga ci wut. waaw kay nan ak nan ngay utee garab yi. garab yi waaw waaw ah, doon nañu si doon nga joxe ay conseils ci ñuy utee garab. effectivement am en tout si bëgg a nekk fajkat daa war dem jàngi ko. warul sukkandiku jaw ci vidéo yooyu partagé particulier yi pour ñu soulager seen seen problème. Mhm. moom mu sukkandiku ci en retour bëgg a ñëw bëgg a nekk fajkat. loolu logique exemple bu simple lem. xam nga garab la ñëpp xam nañ ko. Mm. dañ naan la lem boo koy na nangam mm. bi nekk ci kaw nii. Mm-hmm. sama doom laa ko jëndaloon. Mm-hmm. sirop sëqat sëqat. waaw doon sëqat euh, dafa xawoon tuuti. Mm-hmm. jëndoo ko sirop bi. bi lem lañ ko defaree. te pourtant man am naa fii butéel lem. bu fees dell ñaar ñaari butéel un litre yu fees dell lem. te xam naa ne lem dina dina sëqat. mais boobu damaa bëgg mu denc ci saa parce que daa war a jàngi. Ah. dama bëgg sëqat arrêté léegi léegi léegi. sirop laa dem jënd lii ko su ma omee lem bi ci fan mu arrêté. léegi xam nga yow par exemple tey man yow yow euh, xam-xamu lem bi nga joxe ko. Mhm. comprendre mais xam-xamu defar sirop bi dama ko téye. dama ko téye waaw effectivement waaw effectivement noonu ah, la. <laughs> lem baax na day faj nii mhm. mais ko ni nga lan nga ko ba def ko sirop. xam ne immédiat effet immédiat la nit ngay dem jaañ ko ci fàttali. jaañ ko sew sew baax yi noonu. <laughs> moo tax moo tax ku utilisateur yi mën na utiliser vidéo yi ngay def mais ku bëgg a nekk fajkat warul utiliser say vidéo bëgg a dem toog dox sa digganteeg nit ñi bëgg fa rek inter intermédiaire di leen encaisser da leen faj parce que loolu arnaque la ak bëgg a lekk xaalis nit mais doo fajkat parce que faj kenn du ko jàng ci ay vidéo waaw pour li ma wax ni mooy ñi nga xam ne dañuy seetaan vidéo yi te faj intéressé leen ñu contacté la ñëw fay la nga jàngal leen faj su leen dalee nga intéressé hmm. mais ñu bañ a sukkandiku sa ay vidéo bëgg say nekk fajkat dañ ne danañ faj ay nit hmm. loolu c'est pas sérieux du du ah. am na ngay wax ci vidéo mën dañ ko tënk ci 30 minutes. voilà te boo ci doon wax mën nga cee wax ñetti fan. wala ñeent voilà xam. war a faj. lépp lu garab yi ñu koy wutee. voilà garab yi yenn ak tamit parfois. Hmm. démb rek benn waay bu may woo ku ma doon faj euh, cancer. Hmm. mu may waxaat ah, pour naa ko jox garab boo xam ne ma ne ko non c'est-à-dire am na garab yoo xam tamit du mën ko mën a jox ci noonu. Hmm. parce que ki may faj mi ngi ëllëg. mais foog nga laajal ko wax am nan toll poids bi ak yeneen c'est-à-dire am nañu faible yenn faible yi ab day yenn keroog boo ko waroon dafa koy téye doo ko jox. parce que yaram attanu ko attanu ko ngay fajee yii. Mhm. mais moom condition bi mu nekk. xam doo ko jox moom il faut nga xam ko. hôpital la ngay dem ñu xool ay tension ay nangam. Mhm. parce que liñ la war a bindal am na yoo xam ni. ba sa tension wàccee mën na laa jekkali ba sa tension yéegee mën na lii di problème. di yóbbu ay téléphone ba muy baax i baax ñu may ah. sama client yenn client yi. Mhm. def naa am seen kanam ko mën nañ ma seede. yenn saa yi nit ñëw wax pourtant garab gaa ngi ma mhm. mais ni mu lay waxaatee nga bind moo xam ne bu ma waxee bind. da nga mujj jël garab gi yow. demande garab. Mhm. loolu waatal ko ci. Mhm. joxaat ko te pourtant même prix bi lay fay. te li xam nañ ko yenn saa yàgg naa ne la dafa dem garab ñëwaat indiwaat tamit. li ngay traité li ngay fayee ci garab bi nga ko jox noonu rek. moom ngay fayee mais li mu la wax. nga xam ne ci am na yeneen ak yeneen yoo xam ne. yu laxasu yu nga dem jutiwaat yeneen garab jaxasewaatal ko kumpatuwaatal ko léegi joxaat ko ko dem donc en fonction ci ci circonstance bi lay toll mm-hmm. donc noonu lay demee quoi mm-hmm. mais tamit ñu xam la li ma mm-hmm. euh, bi li nga waxoon nit ko biir sama biir lay metti sama biiru frère mu jël lem mu naan lem dem biir bi seddul ndax mu yonent bi lu mu wax euh, téere la téere la biir bi seddul mu ñëwaat ni ko biir bi seddul mu ne ko na jëlaat lem mu jëlaat lem demaat biir bi seddul mu demaat ñëwaat bi ñett yoon mu ne ko na jëlaat lem mu mu biir bi bi mu nit ki mm-hmm. ci garab jox nit benn garab mu dem wérul wala des naa wér mhm. yaakaar ne garab yi baaxul fekk yaramam moom benn paquet waru koo faj mhm. mais ñetti paquet wala ñeenti paquet ñoo war koo faj mhm. su ko defee nag mun na ah non naa nga ma gis ma résultat wala naa yi li mu yi ak jël ko day wér kenn loolu baax na daal ñu xam ko xam ne mbirum dosage la te faj lu sérieux la euh, vidéo yi partagé pour nit ki am problème mën a xool solution naturelle yu mën defal boppam mayul droit nit ki mu seetaan vidéo yi bëgg a nekk fajkat officiel déclaré sol garam bu ba mu teg canapém ne day faj parce que vidéo Ousmane Ndiaye li seetaan day faj waaw ah, loolu say loolu loolu ko li ci ginnaaw li nga xam ni kenn wax ci ay vidéo voilà loolu gën kon ñu ngi lay remercier disponibilité bi ak partage bi comme ni ñu koy defee tout le temps rek di jox ñi ñuy seetaan rendez-vous ci vidéo bi yow nga xam ni si euh, la ñuy commencé série de vidéo yi nga am bëgg def ci ay huiles essentielles. Mm-hmm. léegi nag vidéo bi ñu ciy njëkk def nag muy vidéo bii ñëw moom euh, lan mooy huile essentielle lañ ci waxtaanee ak mm-hmm. différence ak huile bii huile bii. waaw huile essentielle ak huile li seen li seen différence. Mm-hmm. ak huile essentielle mooy lan. voilà bu paree nag après léegi dinañ ñëw ci huile essentielle yi benn par benn boo ñu ci ñëw rek nga wax ñu lan lay jëriñ ci doomu aadama. ak nan la ko nit ki di utiliser pour nit ñi gën a mën a xam huile essentielle yi seen njëriñ. Hmm. parce que ñu ngi fi may ñu bëri xamuñu ko. xamuñu ko am doole la am njëriñ ci wàllum faj. Hmm. kon bu tey loolu am nga loo ci bëgg sànni ñu tàggatoo ko. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Fane ñoo joxaat la tag di rek beneen vidéo. Hmm. naa ne naan dog bi vidéo bi xaw na guddi dañ ci defaat beneen vidéo. incha allah indiwaat comme ni nga ko waxee. yeneen feebar yu bë yoo xamante ni dina ko faj. parce que ni ñu koy waxee rek naan dog moom. mooy nga xamante ni li mën a faj dafa ko toppee duñ ko duñ ko jeexal. dëgg la mais dinañ ci ñëwaat yeneen beneen vidéo. Hmm. boo xamante ni dinañ indiwaat yeneen feebar yu bëri yoo xam ne. incha moom baax na ci. Hmm. bu defee nag ñu dugg nag ci huile essentielle yi nga doon wax. Hmm. Euh, parce que dafa nekk loo xamante ni moom bëriwul ci Sénégal. mais dinañ ko faram-fàccee ak suñu xam-xam fu ñu toll. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقرن في